seetlu nañ jamono yi nap gi wala mool yi ñuy dem geej gis nañ accident yi bare na lor takkarnaase na di ñaan uh, yalla yalla defal leen jàmm sama mbokk mool di wax ni accident yi nak liko waral si sama xalaat bare na benn bi mooy condition météorologique manam climat bi des fois mool bi day jeñ dem geej bu jeñee dem geej météo bi changer ci digënté bi fekk ko geej koku dootul am pexé beneen bi mooy ñu wax ni géej gi dana gannax wala dana yëngu mool bi force dem loolu aussi mën na ko indil ay jafe-jafe ak wàllu ci wàllu matériel bi nga xamante ni moom la ñuy demee géej gaal yi nañ koy xoolaat bu baax di ko vérifier avant ñu dem géej parce que gaal yi bant la te bant bi ndox mi bu nekk en contact ak ndox mi bu yàggee da koy fragiliser maanaam day koy yolomal ñu daal xool matériel de pêche bi beneen bi mooy juntukaay yi nga xam ne mool bi daf koy jëfandikoo pour maanaam xam fan la nekk ak ban zone la war a féete muy géolocalisation bi am na ci solo pour boo réeree ci géej même bu fekkee géej gi nga naxul sax boo réeree ci géej ñu xam ni euh, fan nga mën a nekk nga xam fan nga war a ma nekk ak fan nga jëm mu nekk lu am solo dañuy ñaan rek état bi jàppal leen ci wàllu woowu jox leen matériel boobu nga xam ni mooy GPS wala géolocalisation ñu mën ko yóbbu géej mëna nek en sécurité donc loolu lañuy ñaan rek suñu mbokk moolu waaw accident yi nag li koy faral di andi ñaareel mool day dem géej géej gi yëngu si gannaawam wala mu aay si gannaawam te du doon lu muy prévoir waate li nga xam ne tamit moo see musal mool yi pour mool yi mën si mucc il faut que gouvernement bi jël ay engagement am jël lu mel ne ay haricots ak ay marine yoo xam ne heure bu moolee amee problème si géej daanu am lu leen man wallu ji wala loo xam ne dana man dem superviser leen si biir géej ba xam si yan hauteur lan ne bala jéyee di am nu mën leen récupérer ndax tey doo xoolee côté Espagne loolu moo fa am Espagne seen marine yaa ngi si géej gi seen haricot yaa ngi si géej gi fu problème amee ñi leen di wallu day gaaw waa du dee ñun duñu gis ku nu wallu duñu gis ku nu wallu moo tax dee gi bëri si géej gi. météo heure bu ne noo ngi koy déglu noo ngi kaa sukkandiku heure bu météo defee alerte benn mool du dem ñëppay toog daanaka sax doo xoolee liggéey ren sax li koy esegloo loolu si la bokk ndax mool yi fi nekk amuñu xaalis Macky Sall lii moo génne na si sóoraale mool yi sóoraale si mareyeur yi sóoraale si képp koo xam ne yaa ngi yëngu nekk si acteur di liggéey na la bàyyi xel si financement yooyu moo génn du jaaginu financement ndaw xam nga ban financement la war génne. financement les travailleurs ñi nga xam ne dañoo liggéey waa doo jël mbir mi rek ne affaire ndaw ndaw waaw